man moom ci ko si loolu noonu dama dama ci dama ci sawar xam nga waxtaan ci sama ay voilà sama ay petit frère pour que voilà ñu ñu ñu maanaam liñ naan li olof naan ndimbal da siy fekk loxol borom voilà mooy que yow en première yaa war yaa war a xam en fait man football bi fan laa ci bëgg a dem ak la laa ci bëgg a def voilà nga xam ko si toutefois nga xam ko rek man je pense que après yeneen yëpp euh, ça va venir mooy yow di nga xam ne man euh, dama war a dem entraîner su heure entraînement jotee ma jug dem travail parce que après ay xarit deug la amna de nga am say copain parce que lu nek rek heure la quoi lu nek rek heure la heure travail bu jotee va travail nga dem nek sa liggéey nek sa liggéey parce que yak ñi di dem ci bureau yi yéen a yem dañuy xey di dem seen bureau voilà dañuy xey de yow da ngay xey dem sa entraînement bu heure bi jotee voilà bu heure bi jotee va le faire nga dem def ko dina am heure bo xamanteni ne tamit voilà heure yak say xarit la so toogee ak ñom bu ben moment tu sens que ne yow demain da war a jugaat même heure bi nga war a jug pour dem entraîner xoolal waxtaan ceeg ñoom carrément boo ci mënul waxtaan a ñoom bu ñu la comprendre yow xamal yow ne dafa am loo euh, voilà loo am si sa bopp loo xamante ne voilà bëgg nga fa yegg voilà tu te dis que ne voilà man waruma am benn fréquentation bi waruma waruma voilà waruñu waruma fu fu nit ñi tourner rek di ma fa gis genre danga war a nekk nit koo xamante ne da ngay casé wu mooy nekk say entraînement xam euh, heure nelaw bu jotee nga dem nelaw. heure heure heure heure voilà dem def say travail supplémentaire bu joté nga dem def ko parce que ku nek xam football mom c'est il n'est jamais facile voilà il n'est jamais facile xam nga tout le temps da ci wara nek tout le temps da ci wara nek parce que chaque fois rek dañ lay laaj dañ lay laaj euh, sa performance dang ko wara dépasser moo chaque fois rek dañ ci wara nek chaque fois da ci wara nek côté bobu tamit damay xam damay gëna ñaaxat sama petit frère moy que xam nga bu ñu né ñom football lañu bëgg rek manam en fait nañ ci nañ ko nañ ko jox akam nañ ko jox axam mooy que voilà ñuy entraîner sérieux xam nga heure nelaw bu jotee ñu dem di ko def heure lek bu jotee ñu dem di ko def xam nga bañ fu nit ñi tourner rek di leen fa gis man je pense que loolu tamit xam nga ci ci ci ci ci da lay dimbali si sa hygiène de vie parce que fu voilà waaw dañuy manqué fraîcheur xam nga du ñu récupérer et tout mais si toutefois tay jii ni xam nga yaa ngi yaa ngeeg loolu rek grand frère bi lay gis si koñ bi di gis ngay def loolu en fait il va se dire que ni kii woowu ma de mais il est temps ma dem fekk ji ko voilà il est temps ma dem fekk ji ko parce que gis naa sacrifice yi def voilà après da ngay gis ñooñu dañuy déplacé wu ñëw bu dee dàll la ñu jëndal la équipement ñu jëndal parce que gis nañ ne yow tu toujours motivé booy voilà ñoom bu ñu yeew fajar ñu ngi lay gis yaa dem voilà même même bu fekkee sax de loin la ñoom ñu ngi gis ah booy bi kat mu ngi takk dàllam dem dem jaayante ko après bu paree ñëw xam nga casé wu toog parce que football Afrique moom ku nekk xam na dafa metti voilà dafa metti surtout au niveau du Sénégal dafa metti euh, nag euh, ñoom ñooy xam lu ñu bëgg rek ñooy xam lu ñu bëgg xam xam ne voilà ñoom dafa am lu leen war tu dafa am foo xamante ni foofu lañ teg seen bët maanaam dañu war a concentré wu ci seen objectif boobu mais pas ñu nga nekk koo xamante nii les gens fu ñu tourné dañ la fay gis xam nga boo waree noppalu doo noppalu loolu après ça va jouer tamit si sa carrière man je pense que war nañ ci gën a bàyyi xel. Mhm.